salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Bennoo Bokk Yaakaar man la Awa ay AFP laa bokk di nuyoo di dalal sama ministre di dalal sama maire yéen a ngi dégg di dalal sama maire bés bi nag tey maa taamu maak samay femme ñu nekk ay jigéen yoo xam ne dañu nekk ci biir Sicap Liberté 5 ma xoolaat mbir mi xoolaat mbir mi am fu ma nekkoon it ma xoolaat mbir mi xool ba xam ne fi ma nekk kat du man ne baaxul waaye fi ma jëm a ko gën tey nag waaye da leen tàccu lii <laughs> ah, ah, ah xam nga lu tax muy am tàccu li may def dafa rëy damay sumb mbubu fas yéene sol mbubu te xam naa ne euh, madame la maire mbub mii ma nar a sol nga fas yéene ma koo solal yaakaar naa ne su ma rombee kenn du ma ree kii di sama wet nekk ci Ndeye Maguette nga xamante ne bii man jombale naa sama bopp bokk ci liste Ndeye Maguette nekk ci liste boo xam ne du ma ko jàppale loolu dama koy nekk ma fi woon nañu def ci liste ba xool xam ne liste bi doyu ma dama dem seeti ki ma doy bés bi maa ko sàkku parce que xool naa ne Sicap Liberté 5 ñi fi nekk ay jigéen lañu jeunes fi nekk ñun ñoo leen jur lu ñu doon doon doon ay femmes yu ndaw ñun ñoo jur jeunes yi fi nekk te dañuy voté ji xam nañ ne mënal nga ñu dara te xamal nañu boo yóbbu ba ville de Dakar ana waa waa waa kii yi waa waa nu ñu koy xale yi nekk IAM dama am ay jeunes yu nekk Sicap di jàngi IAM ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ma waxtaan ak ñoom ñu ne ma awu jum comme ville de Dakar nee nga Diouf Sarr ko soxla ma ne ko naa man ma dañuy jàppale Zahra jàppale Diouf Sarr ndax bu ñu dee nekkee yàlla tegli suñu yaay yi fay bi ñuy fay te xam ne métti na ku nekk xam na ne école ba ñu nekk fay bi cher la waaye bëgg suñu doom baax suba te xam nañ ne ñun boo leen jëlee mairie jël ville de Dakar bourse ñu soxla di ngeen ko teg suñu loxo xam nañ ne lii ñu nekkee fii ci diggu dëkk bii xam ne Liberté 5 gis nga bi ngay ñëw ni mu méttee lëndëm na wax dëgg yàlla bu dul woon torche yi ngeen nii tey du leer ma lay xamal ne bés bii di la ko waxal di la ko waxal Ndeye Maguette Lo ñëw naa saf naa te dootuma dañ. kontaan nga parce que fi ma ñëw rek fii laa war a ñëw sooy ànd ak mbër da ngay ànd ak mbër muy daan muy bëre daan ngay ree waaye boo ànd ak mbër moo xam ne fu ñu ko jekkoo teg ko ci suuf loo fay def bës ni ki tey maa ngi ci ginnaaw madame la maire waa Sicap kii moo ko yor keneen ko leen sànni seen carte Fatou Sow jeeg ji ko leen sànni seen carte yàq ngeen ko kii a ko yor madame ma maire dootuma la wax sax yaan duma la wax ministre bi sax neex na waaye maire bi nga nar a nekk di jigéen ñun ñuy jigéen xam li ci yaay xam li ci nekk dénk nañ la suñu kàddu dénk nañ la suñu loxo dénk nañ la suñu lépp jërëjëfati waa liste bi ma nekkoon liste bi mën naa ne sax est-ce que jàpp naa ci lu bari Cheikh Ndiaye ko yor te ku nekk xam na ne Cheikh Ndiaye fii la nekk ci dëkk bi nekk si kàb bi wax dëgg yàlla nag am lu mu bëgg Zahra mi bëgg ko ma xool sama bopp peese waat sama bopp te ragalu ma dara xool li ma xam te ku ne xam na si kàb gii nag gaynde laa fi ku ma xam-xam ne si kàb Liberté 5 bi ñi ànd ak Zahra ñi ma jiitu ak ñi fas yéene toppaat ci man xam nañ ne dara naa ci diggu dëkk bi fii liggéeykat la kër gii ma ko dugal tey ñu defal ko fi ay ñaan jigéen ju sell nekk ci biir kër gii fii laa ko njëkk a dugal mës naa ànd moom ànd ak ndem si yàlla dugg moom ci biir kër gi Alioune Ndiaye dugal fii Zahra ci biir kër gi di ànd ak moom xay na leen nag léeg-léeg nga dem ci loo xam ne sa tànk dina faqasalu te doo ko gis gis naa ne suñu góom gi ki koy faj kii la moo ñu doy xam nañu lii ñu bëgg ci suñu sikaab bi soxla ko xam ne li fi nekk ci budget dañ ko war a génne defar sikaab parce a am ni mu mel te ko xool leen suñu gox ni mu mel léegi te bëgg nañ nag lu ko leeral bëgg nañu sécurité te loolu xam nañ li ñu bëgg kii moo ñu ko mën a jox kontaan nag ci wóolu bi ñu wóolu ba mu jaral la nga ñëw fekk ci liste Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté ñu lay sant di la gërëm man ak liste bi yëpp man ak Ndeye Maguette Lo mi nga xam ne yéen bokk seen AFP ak mboolem coalition Benno Bokk Yaakaar lii nga def nii njëkkewul ci yow te gëm naa ne du mujjee ci yow ndax ñu ñëpp ay doomu Sicap lañ Sicap rek a ñu ñor suñuy doom a ñu ñor suñuy yaay ñu yor ñor suñuy papa ñu ñor xale yi xëyu ndaw yi seen wér-gi-yaram ak seen am santé seen am sécurité seen am euh, entrepreneuriat yu ñu jàpp loolu moo ñu soxal ci loolu la ñu xamante man ak yow ñun ñi ànd ñëpp ci loolu la ñu xamante te nag Sicap bu ko ñun doomu Sicap yi defarul ku koy defar xaw ma ku koy defar kon lii nga def nii rafetlu nañ ko te ñi ngi wax aussi na ñëpp ñëw ndax ñun neewoon nañ ci njëlbeen bu doon suñu sago ñun ñëpp dañuy nekk benn say <laughs> ñuy xàccandoor di dóorandoor ndax commune bi ñoo ko bëgg te kenn ku nekk ci ñun am na yéene ci commune bi kon li ñuy tas tasal di ko def benn benn ñu àndandoor ko def ko moo gën d'autant plus que suñu kilifa yi dañu wax mm-hmm. man de yàlla xam na ne bu ma bokkee Benno Bokk Yaakaar kilifa Benno Bokk Yaakaar yi dogal damay topp ci li ñu dogal ndax loolu mooy militantisme loolu mooy engagement ku def leneen rek da nga def sa bëgg-bëgg mais defoo li nga xam ne mooy li war a nekk intérêt euh, groupe bi ndax bëgg neex na ñàkk métti na mais engagement moo sut loolu yëpp te tey lii ñu dëgmal bëgg fa dem defar Sicap la ndax jàpp nañ ne difficulté yi bëri nañ fi xam nañ ko te boo seetloo campagne bi ay ndaw rek a ñu topp chaque jour mu gën a bëri chaque jour mu gën a bëri waaye jur yaa ngi ci biir kër yi di ñu ñaanal mais ndaw yi ñoo wàcc ci terrain bi te ñëpp xam nañ ne ndaw bu wàcc si terrain rek yaakaar moo tax nga wàcc si terrain bi kon yaakaar bi ndaw yi am ko ci ñun yàlla buñ ko tas ndax acteur politique dafa tumranke woon am confiance su population rawatina confiance su kon tey suñu demee ba jeunesse bi delluwaat am confiance ci politique yi am confiance su liste Benno Bokk Yaakaar ba nit ñi di jóge ci yeneen liste di ñëw dañ naan kon fi ñu jëm fu leer la programme bi ñu proposé waa SICAP ñoom gis nañ ci seen bopp te nag ñëpp ñi nga xam ne développement moo leen tax a jug SICAP moo leen tax a jug eh bien dañuy ñëw kon ñu ngi lay wax dalal jàmm na nga ci taq rib ñu àndandoon nag di tarxiis ba mairie ba jërëjëf